السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأسى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقى وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختيل لكم أبداً فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته وأن, وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميه مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق رتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه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 di ñaan sunu borom mi jéggale mu boole mu jéggal ci barkeb sëriñ Touba di leen sant ci teewaay bi di ñaan sunu boroom sunu jataay bi mu bokk ci jataay ya mu gën a gërëm di ñaanal al cheikh Mouhamadul Muntaqa li mu bëgg yàlla defal ko ko na mu ko bëggee te li taalibe bëgg ci moom yàlla defal leen ko te mu yàgg fi te amug wér ba àggale naa la mi di leen jottali ay nuyoom ay ndokkeelam ay ñaanam ci bis bii nga xam ne ñun ak moom ak mbokki jullit yépp ñoo ko bokk sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy ndokkeel mu ngi leen di ñaanal ndimbalu sunu borom ak tawfiqam mi ngi leen di ñaanal weer wii ñu génn lépp lu ci waay jëf ci lu baax boromam nangul ko ko te fulal ko ko te dencal ko ko foo xam ne noppi naa yàqu te lépp lu ci waay defoon ci am njuumte boromam jéggal ko ko sëriñ bi waxoon ne bala ñoo indi kàddu yi muy dénkaane nañu fàttali eh, li nga xam ne dafa bokk ci koor gi ñu koy wax muurum koor ku ko defagul woon mu xam ne la ca gënoon mooy mu defoon ko balaa ñëw ci jullikaay bi waaye bu fekkee defagu ko woon ba ñëw itam weesagut ku dem nga daal di koy def ngir ñi fàttali dañ koy génn ci li ëpp ci li nit ñi dunde ci ceeb walla dugub kum neexit nga xam la muy jar nga génne ko xaalis waaye képp koo xam ne yaa ko war a dundal yaa ko war a génnewaaleel muurum koor bopp bu nekk it yaa ngi koy génneel ñaari kilo ak genn wàll bu fekkee da nga koo xayma ci lu mel na ceeb 875 mel na ne ñu bari dëppoo nañ ci boo ko xoolee bopp bopp yi nga war a génneel yépp kenn ko ne nga génneel ko lu toll noonu sëriñ bi daa waxoon ne nañ koy fàttali ku ko defagul woon bu demee mu daal di def yitte ci jéem koo génne mu wax nag ne li muy dénk mboolem jullit yépp rawatina taalibe yi yaakaar sëriñ Touba mooy ñu bàyyi xel li nu fi indi te bàyyi nu fi te mooy jàmm yàlla sunu borom bi mu farataale koor gi ci ñun ba wax ko ci alxuraan fa mu tëjee wax ja mooy ngir ngeen mën a am ak ragal yàlla ragal yàlla mooy di jëf ndigalul yàlla tey moytu ay tereem jëf ndigalul yàlla tey moytu tereem mooy ragal yàlla waaye mooy jaamu yàlla wax nañ lu bari ne jaamu yàlla ñaari xaaj rek la mooy xam li la yàlla digal nga di ko def xam lim la tere nga di ko sori seen bi nee na ñu ngi koy dénkaane di ko fàttali ñépp xam ne suñu boroom ni mu ko waxee bi mu bind ngir ñu jaamu ko rek moo tax mu binduñu jaamu gi mu ay yebal ay ndaw wax leen niñ koy defee ba ndaw ya jeexee muy tànn ay gaay yu baax yu ñuy woy ay wàlliyu di leen yebal ngir ñuy jàngale ni ñu ko war a jaamoo kon sëriñ bi nee na na ci ñëpp def yitte fexe ba waxtu wu ne ngay sax ci di jaamu yàlla muy li la yàlla digal nga di ko def lim la tere nga di ko moytu te loolu tam mooy tax sunu nekk ci kaw suuf am njariñ mooy tax sunu nekk ci kaw suuf maanaam li ñuy wax mu am sens ndax jumtukaay bu mu mën a doon la tax ñu wut ko bu ko mën def rek duutu am solo danaa ci joxe misaal ci lu bari micro yii di wax micro bu boo ci xam ne dem na ba mënatu la jot li ay wax defe naa dañ koy sànni ca mbalit ma waaye doomu aadama itam saa bu noppee jëf ndigalul boromam rek moo ko mbalit ñooyam amatul njariñ ci kaw suuf mm-hmm. kon bu ñu bëggee sunu nekk ci kaw suuf teg ci dara nanu sax ci li yàlla digle ñu di ko def te lépp loo xam ne lu muy tere la ñu di ko sori te xam ne itam moom yàlla ak mbaaxam ak yërmandem àgg na ci mu terale doomu aadama teraanga joo xam ne lépp lu nekk ci kaw suuf daf ko koo terale daf koo bind ngir moom doomu aadama ngir terale ko ko kon lépp loo xam ne seet na ko ba ne ko lii ko laal dafa fekk na loola baaxut ci moom ci àdduna baaxut ci moom ci àllaaxira moo tax mu tere ko kon loolu li muy tekki mooy yàlla lépp lu mu digle njariñu aduna ak ju àllaaxira moo ca nekk moo tax mu digle ko waaye lépp lu mu tere itam lor yi adduna moo ca nekk ak ju àllaaxira moo tax mu tere ko moo xam nag xam nga lor ge ci lu teew wala nga ñàkk koo xam waaye lépp lu yàlla tere lu mu tuuti tuuti nañu xam ne lor yi adduna ak ju àllaaxira moo ca nekk moo yàlla tere ko yàlla yërmandeem ëpp na li ci kaw suuf lépp mu def ko fi ngir doomu aadama ba noppi di ko tere loo xam ne lu ko amal njariñ la lépp loo ci xam ne ni tere na rek daf fekk ne lu koy gaañ la fii ci àdduna wala ci àllaaxira kon nañu gëm loolu te jàpp ko ne lépp lu yàlla tere lu amul njariñ la luy gaañ la fii ci àdduna ak lu ak ci àllaaxira waaye lépp lu digle itam nag njariñu àdduna kese moo ci nekk ak yu àllaaxira kon bu ñu bëggee am jàmm fii ci àdduna amuk texe ëllëg ci àllaaxira nañu sax ci li yàllay digle ñu xam ko te di ko def te lépp loo xam ne lu muy tere la ñu xam ko te di ko sori te sëriñ bi nee na nañu fàttaliku li nga xam ne moom la yàlla wax ci ne ku jëf dig ay digleem te moytu ay terem moom moom la lay añale te suñ borom wax ñu wax na ci lu bari wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yudim lahu ajra képp koo xam ne yaa ngi def li yàlla digle tey moytu ay terem suñ borom sa borom dana la jéggal sa mboolem bàkkaar yépp waaye dana la fay itam tuyaaba ju réerée joo xam ne kenn mënta xam nu muy toll waxaat ne wa man yattaqillaha yajcal lahu min amrihi yusra képp koo xam ne yaa ngi def li yàllay digle te li muy tere nga di ko moytu mépp mbir moo dugg suñu borom daan la ci defal ak jàppandi ba nga am ko nam ko bëgge waxaat ne wa man yattaqillaaha suñu borom dana ko wërsëgal foo xam ne du ko foog képp koo xam ne yaa ngi def li yàlla digle te li muy tere nga di ko moytu suñu borom dana la jox wërsëg woo xam ne daf lay bett fa muy jóge doo ko xam ak yeneen ak yeneen wa may wax na feneen ne yéen jullit ñi bu ngeen defee ndigalul seen borom te moytu ay tereem seen boroom dana leen defar ak ak leer ngeen mën a xàmmee lu baax ak lu baaxul mën a xàmmee ak neen ak ak ak akuk dëgg mën a xàmmee fi ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk ba mu jural leen tax ak àdduna gu àllaaxira waaye yemu ca dana leen jéggal seeni bàkkaar yu ndaw ak yu mag dana leen defal ay ngëneel yu yaatoo yaatu kon sëriñ bi daa wax ne nañu xam ne suñu borom bi muy farataal ci ñun koor gi ngir mu jural ñu ak ragal yàlla te nee naa léegi ak ragal yàlla mooy li yàllay digle nga xam ko te di ko def te li yàllay tere nga xam ko te sori ko te loolu nag moo ñu jik mooy suñ jàmm fii ci àdduna mooy suñ jàmm fële ci àllaaxira loolu moo tax sëriñ bi ne woon nañ tënk kàddu yooyu fu waay dem nga jëme ko fa xam ne foo mën a nekk loo sori sori loo jege jege loo wéet wéet ak loo wéetaliku na nga xam ne def ndigalul yàlla mooy li gën ci yow fii ci àdduna ak ci àllaaxira waaye moytu lim la tere itam mooy li gën ci yow fii ci àdduna ak ci àllaaxira fu fi ab taalibe mën a nekk fu fi ab jullit mën a nekk na jàpp loolu di ca dox fas yéene sàkku ngërëmul boromam sëriñ bi nee na mi ngi ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp ñu fekke waat déwén ñaanal ñëpp aaju yu faju ñaanal ñëpp njëggalu suñu borom di ñaanal ñëpp nanguk jëfuk si nanguk seeni jàmm yàlla ñu man tamit maa ngi leen di jéggulu di eh, jël nuyoo yi njéggal jéggulu gi di ko teg ci loxo yi sëriñ Abdul Ahad mii mu jàllaleel na ko ci mbokki taalib yi fi nekk yépp di ay kilifa rawatina ki nga xam ne moo fi teewal xalif général des mourides di Baye Ndiaga Fall mu jàllale ko ci mboolem mbokki taalib yi ak kilifa yi fi nekk yépp kullu amin wa antum bi wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg ñëw yàgg noo jiite. mu ngi nuyu sëñ Fallou Mbacké mii nga xam ne moom di ko sant bu baax te di ko gërëm te ci si turu taalibe yëpp ak si njiitul sëñ Ndiaga Fall ak mboolem mbokk yi fi nekk yëpp di ko yóbbante sant si sëñ Mountakha si tànn gi nu ko nu ko tànnal. te leneen lu mu war a tànnal mu topp si gannaaw waaye moom mii nag ñëpp bëggoon mu tànn leen ko waaye ñun ñii la ko yàlla jagleel loolu nag ñu si sant yàlla bu a baax a baax yëg nañ ne nag am na ñuy demoon sa sëñ ba. doon fa sakku yeneen digal waaye ñun ñii day yàlla doon na sëriñ bi si boppam sëriñ Fallou tàggu ñu ne ko xamal ko ne ko am nañu fi ñëwoon waaye loolu yàqul dara si digal liñ la joxoon yéen wéyal leen seenu liggéey loolu nag bu ko sëñ moom bi mu jëm si moom moom man ngoolee waaye moom bàyyi laat mbàkke mii nga xam moo nekk mu si bambi weer di ñu taxaw si képp wet am na trois leeral loolu ngir déggantu dafa gënul lenn lu leerul lenn lu leerul abdoulaat sëñ abdoulaat mi si dugg sëñ Muntaxaa Muntaxaa nag

la demee ñii naan nee la demee. ñii naan nii la demee ñii naan nee la demee. leeral ko ba ñëpp xam ko wàññiwul dara. waaye mën a jëlee ndigal. waaye mën a jëlee na ji. ولا